Well, euh, je vais vous faire une genèse, c'est-à-dire que sur ce cimetière, c'est-à-dire que pour les décès, su nit mes décès mooy euh, li ñuy jëkk laaj mooy famille am na décès nit ki décédé na ci cimetière ci astafurlah ci ci euh, hôpital wala ci kër lu ñuy def mooy constat médecin bi médecin bi constaté décès bi dañuy war a médecin son doon le médecin bi fait une constaté ko suko defare suko suko constat ba pare defal ko un certificat de décès c'est que constat de décès bi constat de décès boobu la jël ak euh, carte d'identité ki gañu ak déclarant bi moy mbokk yu koy yu koy buñé dal di dem ci mairie bu len gën a jege hôpitaux en général ça am nañu ay euh, ay état civil yu ci bëri fii ci de la place bon ak yeneen état civil yi nga xam ne ñu ngi ci ci biir dëkk bi law fa la ñuy dem yóbbu certificat euh, le constat du médecin un constat de décès, puis on a dit que la personne est décédée. Ensuite, euh, euh, la pièce d'identité du, défunt ou de la défunte, moi qui gagne, ou pour il certificat de décès au niveau de l'état civil. Moi, c'est un officier d'état civil de la place, de, mairie. Moi, il a fait euh, le, permis d'inhumation le certificat de décès alors certificat de décès bi suñ ko su ko jotee moom permis bi la ñuy indil suñu jotee ci say permis permis bi mooy lii c'est ça c'est ça le permis alors suñu suñu gisee ni on sait que maintenant on est autorisé que pour ñu bay ñu en inhumer voilà ku ñëw nag sans sans permis d'inhumation ñu ne yëg war a denc on n'accepte pas voilà loolu loolu liggéey bi loolu lay consister et puis voilà euh, en grosso modo c'est surtout ça quoi

alors nous on c'est ça quoi on essaie de nous orienter nous orienter pour ñu accepter pour procéder à une inhumation de tout genre. Il y a des problèmes problème place maanaam ndax du saturé des fois. non non non le cimetière n'est pas saturé Il faut que le cimetière peut aller encore comme je le dis souvent 20 ans encore 20 ans 30 ans pourquoi pas hein, on essaie de maximiser justement il faut que tu donnes le dernier cadre problème pour mun sauvegarder loolu yëpp pour ñu ko mu lu mu gën a mun a quoi matériels yoo xamante di ngeen ko manqué ci walum liggéey non non non euh, la mairie euh, ñu ngi ñu koy octroyé parce que ñun on est euh, on est doté en matériel par la ville de Dakar mu ñu koy jox et puis encore aussi. comme de dëkku de dëkku musulman il y a les bonnes volontés qui passent souvent risques ku ñëw

cimetière maa ngi fi def comme fossoyeur di dimbale bay genn àdduna yi waaw ndax euh, doomu aadama bu man di doon bu génne àdduna bëgg nga ko la toppatoo man si yooyu laay yëngu. waaw bëggoon xam tey sa depuis ñaata at nga koy def. ah xaw naa diire tuuti ay mën na dem ci ay dix ans yooyu mais. aussi ay volontariat lan encore. bëggoon xam tey ndax métier bi doon la wala loo xamante ne dañ la ko fal. non du question di doon ndax euh, ay nit a fi newoon ñu demoon ba mënatul te nit ki bu génnee àdduna il ñu denc ko euh, ñu nekkoon fi ak ñoom ñu ne comme ñoom doon fi nekkoon euh, di jaamu yàlla. ah ñii néew nañ doole ñii dem nañ ba xamante ni bii génn nañ àdduna kon ñun ñu fi nekkoon ak ñoom war nañoo am ñoo xamante ne bii mën nañ leen na renouveler loolu moo ñu si dugal. kon xam tey jii ñaata nit lañ fii denc bés bu ne. non kooku nag moom ka ko duma ko calcul du ma ko calculer. ndax bëri na walla bëriwul. non ça dépend si kii bi rek waaw. tey jii ndax jote nga am fii ay. waaw dese yi mooy gis nga ñiy toog nii dese la ñuy xaar ak seegul nag mais ñi toog nii dese la ñuy xaar waaw. ma bëggoon xam tey sa famille nan lañu gisee liggéey bi ngay def. non sama yi pour ñu ko gisee neen ndax euh, mbir mi moom liggéey la rek liggéey la boo xamante ne bii aussi liggéey bu noobul la ndax euh, li si nekk mooy sàcculoo fenuloo da nga jóg pour jaamu yàlla di dimbale ñi nga xamante ne bii dañu génn àdduna ak ñi nga xamante ne bii ñoo am mbokk yu génn àdduna ñu ñëw nga di leen dimbale foofu amul benn conséquence bu fi nekk waaw. ndax fii ngeen di fanaan. non noonu non donc doo leen fi fanaan. su wàcc jotee dañuy wàcc dem ji waaw. ban heure ngeen di xëy si ak ban heure ngeen di wàcc. huit heures moom danañ xëy si waaw. 17 heures 18 18 euh, heures ñu wàcc dem ñibbi waaw. ndax mës nga gis lu la fi jaaxal ci armeel yi. armeel yi fii luy jaaxal nit nekku fi ndax li jaaxal nit nekku fi mooy ñu fi nekk ñëpp ay doomu aadama lan comme yow dan doon dem di doxi seen soxla di ñëw déjà sunu borom moo leen soxla jël leen lim soxla ci moom mooy ruug yi léegi li fa des. mom lañ andi euh, sutural len fi kon leen la bu fi gis noo rek doma aadama la comme yow am ben problème. ñu bëggoon xam ndax parfois dañ fi yoni ay nit walum serigne tou ñu gas ay téré di fi non lolu man musuma ko gis wa kon mënuma ci sori ndax nit ki li ngay sori moy li nga xamanteni bi moy lo ma sa gis mais lo musul gis. mënoo ci insister ne am na wala am amul